ndam lu neexul cent pour cent Ama Baldé ci làmb ji nga xam ne amoon na ko digganteem ak Gris Bordeaux làmb ja jeex na ñu bëgg andi tuuti nag bu gisee ñu ni neexu ko ndax kii di Ama Baldé amoon na yéene nag dëgg-dëgg sol bu ndaw daal di dóor Gris Bordeaux ba daan ko waaye loolu lépp nag maanaam amul. waaye nag victoire victoire lay doon moom Gris Bordeaux nag daanaka sa ngéem la fi mu toll nii wàllu làmbam dana indi ak coox wala dana am cooxe goo xam ne gu métti lay doon ci moom ndax fi mu toll nii bu fekkente ni bëgg naa bëri ak ponkal yi ne ca kanam dana am taxawaay bu am solo waaye taxawaay bii mu taxawee baaxul dara tey yaakaar naa bari na lu areer ci moom làmb tey drapeau Fass bi nga xam ne Moustapha Gueye yoroon na ko mu am solo moom Tigre de Fass bi fi mu toll yaakaar naa ne nërmeelu la gën a jege victoire bu mucc ayib bi nga xam ne Pikine am na ko ginnaaw bi nga xamee ne Ama Baldé jóge na ci ay jafe-jafe ak défaite yoo xam ni mujj na ko yebbi waaye fi mu toll aw yoonam leeraat na mi ngi ci jàmm ak salaam commencé waat na nag fi mu toll ginnaaw bi ma amee jële ci Modou kanamam nag fa mu jëm baye bu bëri préparé te xam ni Sele bu ndaw préparé na boppam te préparé na boppam physiquement expérience tamit xel mi ak ñi nga xam ne ñooy topp ci ginnaawam loolee lépp fi mu toll nii bu doon ëpp dëxëñ la gars yi dëxëñ nañ ko ba teg ko ci taabal ji xanaa kon yaakaar naa ñu ñaanal ko jàmm Pikine nag lii la soxla muy victoire yoo xam ne dañ koy renouveler nga xam ne victoire yooyee ñoom ñëpp nag dañ ko doon xaar am na nag ci kii di maabal de gars yi kon ñu ñaanal leen jàmm sàkku ci yéen abonnement yow mi door a ñëw yow mi ko def ba pare cant ak gërëm ñeel na la Ama Baldé ñu félicité ko euh, ki la nga xam ne mooy Gris Bordeaux tamit mérito wul waaye loolu rek bëri ànd.